jërëjëf mbokk amateurs yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di am mbégte tey teewal leen fii ci jàmbagal Sicap Mbao li ñu fi nekk mooy Mama Lamine wan leen ni muy waajee digganteem ak Garga de dimanche fee ci arène nationale ñuy gërëm population euh, jàmbagal Sicap Mbao ñu ñëwee en masse jàppale seen xarit seen doom seen jarbaat waaye ni ñaan bis bi yàlla nañ ci yow yàlla yóbbu ak jàmm di ñaan ngeen def forte délégation jàppale promoteur bi ndax suñu naw la tata naw la comme ñun maama ginnaaw bi la nuyoo di la siyaare ñu bàyyi la nga nuyoo onze billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul mm-hmm. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli suñu bu tedd bi di gërëm suñu ñaari waajur sant suñu Serigne Sidi Abdourahmane Mbacke am na ko yalla yàlla bàyyi yàgg loolu ànd ak wér di nuyu Baye Karim Mbacke Fall bu baax a baax ak taam soxna May di nuyu Serigne Sidi Mbacke Alxuraan borom jàmm gën borom sibaat baax di nuyu Serigne Fallou Fall di ko ñaanal gudd fan ak wér gu di nuyu maam Cheikh Anta Mbacke kon Daaru Salaam ak gën si kàpp baaw gi ñëpp maa ngi leen di di leen sant di leen gërëm di sama xaritu mbër yi di nuyu presse bi di diine kilifa ak aada yëpp comprendre nga. jërëjëf maama combat bi jàppoon nañ ko. yàlla dem ak dogalam nga am blessure mu nekk combat bi nga xam ne na nañu séntu na moo nekk combat bi nar a bi. Mm-hmm. ndax combat amateur la. combat la boo xam ne ñu ko bëggoon bëri na tey mm. jàpp nañ combat bi yàlla def nga am blessure yàlla dogal na wér nga macha allah yàlla na gën a yokk mm. tey nan nga waajee si diggante Garga 2 bi nga xam ne ba tey fa mu nekkoon fa mu nekk la xaar liñ ci doon waaj ba léegi juguñu ci ci loolu lañ nekk ba tey comprendre nga ko bëggoon a bëgg ko amul tey yàlla def na day am yàlla nañ yàlla bis yóbbu ci bis bi ak jàmm may ñu talak fekkee bés jàmm ñu bëre man ak Garga 2 yàlla may man dem ci kaw ñu mel ne ñu gis ku mel da peut-être loolu nga gis. daa bëgg a xeex wala. je ne pas man daal làmb laay def. ku xam Mama Lamine xam ko ci safara xam ko ci mën bis. tey lan la ñuy xaar ci diggante Garga 2 bi nga xam ne ñëpp jàpp na ne tey bu dee ci wàllu bëri bi moo la cëppale. waaw ñëpp loolu lañ foog waaye bu arbitre siffle laa li mu mën na ma ko def man lu ma mën ma def waaye li ñu ñuy wax man compté man li ma liggéey laa xam ak li ma yaakaar. kase amul leneen. wax na ni ci nga dëgmal bés. nga dëgmal bés gis ñi nga tourné gis 100 pour cent jàmm gën loolu lan la lay def. fii fait plaisir. parce que wax dëgg yàlla xewle gis say mbokk dafa neex mais xewle sa koñ gis sa waa koñ dafa neex. ñu xam ne ay champion nga bëri champion nga mujjee daal mais yow yow ci sa jëmmi bopp xam nga ni. daanaan biir ngay bëreel Garga ndax bagarreur la te dafa mën a bëri te ñëpp xam nañ ni xeexkat est-ce que yaa ngi sóoraale xeex sa noonu li mu mën yëpp nangu naa ko accordé naa waaye bu bis baa lu mu mën ci mën dina ko hmm. dafa am benn wax bu blessé Garga 2 mooy da nga koy weer te moom jàpp na ni position am ci làmb du du Maama lamin la war a bëreel war naa bëri ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaw lan nga ko ñemee ba ni danga koy weer loolu daf ko métti. dama ko wax mu weddi ko na bàyyi ba bés ba. mu lay xool. dama ni dama ko ko wax mu weddi mhm. ba bis ba dinaa ko war lan laay def ba weer ko. di weer gerte incha allah ci kàttan yàlla bu xeexee ma duma ko su bëree ma jàpp ko daan ko. ñu bari ci analysateurs yi nee nañ xeexu a Lamine lañ gën a séntu mais séntuwuñu ci moom bëre ñaar yëpp ngay indi wala da ngay xeex. man damay xeex damay bëre ma damaa mën a bëre. damaa mën a bëre. mais maama xeex xeex bi nga daan xeex ci làmb ñu lay gis à chaque fois sa làmb yi nga jógee bari xeex bi dafay bari te xeex boobu di nga ko indi contre Garga ah, booy préparé da ngay préparé rek te boo benn da ngay préparé lépp booy dem jixaat da ngay bul fàtte sa benn bal sa bal yëpp ngay yóbbaale man lépp loo xamante ni dama ko waajal ngir war a dem pour jongan jongante Garga 2 amul lu ma ciy bàyyi si suis prêt suba suba suba pare. amateur yi mel nii dañ koy xaar ndax dafa nekk bés bu am solo ndax ñaar ñi ciy daje Garga 2 ak Mama Lamine loolu combat boobu amateur yi dañ ko soxla mais amateur yi saa su ne dañuy gis ni combat yi mel nii saa bu koy xaar saa bu ñu ñëwee ci biir stade daal dañ ciy am déception totale duñ ci am satisfaction lan lañ mën a xaar ci bés boobu ci diggante non man ak Garga 2 wax dëgg yàlla dina neex ndax li mu wax bu ko dëggalee no combat bi dina neex trop wax dëgg yàlla Garga de champion la te ndaanaan la Mama Lamine champion la te kon buñ dajee fulla ak fayda rek moo fa am. maama bis bi est-ce que bis ci yow parce que da ngaa boot rek tam ñu war ci bis bi ànd ak yow ñëpp di défendre kileeru jàmm gën. non bis du rëy si parce que ni mu toll ci ma rek lay toll. dara diisul si moom si ma. wallaahi azim dara. samay rab maa ngi leen di yàlla nag yàlla may leen ndam. bu baax a baax maa ngi leen ñaanal Coly Faye 2 dafa am combat yàlla na ko yàlla may ndam Siteu dafa am combat yàlla na ko yàlla may ndam caatu fara aussi tamit noonu comprendre voilà ñu ngi ñaanal ñëpp képp ku am combat dëkk jàmm ga ci Cap Mbaaw ñu ngi lay ñaanal yàlla la yàlla may ndam ku amul nag yàlla la yàlla may combat hommage Sodé bi nag lu ko waral moo kooku mënul génn si ñun kooku yàlla yóbbu na ko mais teewul mu ngi si ñun chaque jour moo waral lii yëpp moom moo dëgg yàlla kenn la si ñun quoi te wax dëgg yàlla buñ sañoon lépp lu ñuy def ñu fekk ko ànd kook moom mais nag xëy na yàlla li la namm ci moom di jaalewaat suñu mbokk yëpp ku xamante ni wàññeeku si ñun la muy Sidi Oumy papaam waajuram bu góor ko wàññeeku ambu ambourage baas suma xarit tamit yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana Maodo ñu ngi koy ñaanal tamit suñu borom xaare ko àjjana comprendre àdduna ñi dem ragal yóbbu leen ñi fi des ñime baw leen fi ku sa bés jot ngay dem kon ñu ngi di ñaanal yàlla yàlla na yàlla xaare barki dafa am seede bu bu rëy bu garga de def ci yow ma dékk ko micro mu ne dañu nangu mbaxane mais yow da ñëw taxaw jaayante ni lii daan Garga du ci mbaxane bii ñu jël nañu bàyyi mu bëree ak moom ba lu ñu yàlla may mu jël te ñu ne xam nañ ni ñi topp ci ginnaaw waa jàmm gën yi amuñu ci sago ci mbëru maam ci Mama Lamine buy bëre lan nga mën a wax ñi nga xamante ni dañoo topp sa ginnaaw bëgg la te amuñu ci yow sago. ok maa ngi jaale aussi tamit Ibrahima Dramé. Hmm. waaw maa ngi koy da jaale Dramé Dramé yëpp comprendre leen li may wax mooy Garga 2. Hmm. lañ def signature. mosu am problème. kon li tubaab naan l'erreur humaine mm. mal attendre day am quoi mm. loolu moom daal dal boobu mm. te nag wax dëgg yàlla ni ma réagir c'est normal ma ko parce que nous sommes pas des ennemis nous sommes des adversaires benn ngoon la rek après bu jeexee jeex na kon lu ci mënti nekk rek nañ ko war a rafetal man Garga 2 ñu rubeel ma ko wala ñu tooñal ma ko sant ma ko kenn man mi jël avance am war a bëreeg moom man xam naa lu tax ma jël ko comprendre kon loolu moo may may man li may may mooy sama ñaq li ma liggéey te incha allahu rabbi li ma liggéey bu bis baa dinaa ko wan incha allah. ñi ànd ak yow ci yow sago lan nga leen. waaw mais di leen di leen masaw rek. parce que nit ku nekk nit nga. kilo bëgg mënoo ko. ci làmb ja mënoo ku ñëw na nga dal. Hmm. def tekk def tekk wala yoon parce que xam nga. sport la ñuy def quoi na ñëw ñëpp sol rafet sangu ba naay ñëw toog seetaan seen mbër ñu tuus comprendre nga bëre bëre bi daan daan bi ñibbi ñibbi bi ci kàttanu yàlla. li ñu xam ci maama mooy attaqué jëli. combat bu gaaw te neex te bëri safara ndax mën nañ koo séntu ci yow dimanche lu bokk la xaar. xaaral lépp lépp loo xam ne da ko doon gis ci man bu ci bàyyi dara xaar lépp. wooteel maa ngi woo waa tund jàmm gën gi waa Sicap Mbao ñëpp maa ngi leen woo comprendre nga. di woo waa Poste Thiaroye yi waa Défense waa Guédiawaye di woo sama waa dëkk baax a baax ba waa Fissel Mbarane ak waa Thiadiaye comprendre ñu woo waa Fora jaaykatu yàpp yi jaaykatu ngooñ yi woo ñoom laay pata gars yi ñun ñëpp maa leen di woo waa Télimam Diarra waa mbedd bu mag comprendre caw sa maa ngi leen di woo ci combat bu baax a baax waa guy ga comprendre yee tablo xaarim angle lawbe angle njaago ñëpp maa leen di woo ñu woo Gambi borom sareet yi tout maa ngi woo ñëpp di woo nag suma mère madame la madame madame Sarr ngi koy woo bu baax a baax mu jàppale ma ñaata bolok. lu mu def lu mu def moom moom du ay bolok moom maa ngi moom ba ñuy ànd c'était en 2012. sëriñ bi looy wax Garga mi ngi lay seetaan xam naa wax dootu fi di ko ñaanal jàmm ak tawfeex rek. yàlla may ko gudd gudd fan ak wér gu yaram. ba ba bis ba. mu ñëw yàlla may ma ndam ci kawam. jërëjëf jërëjëf Penda Sidi tamit maa ngi koy sant bu baax jigéen ju mën góor la comprendre nga ñëw na fii yëkkati xaalis bari may ñu waaw te jigéen na ko def ñu ngi leen di sant bu baax di leen di nuyu ñoom Fëgala ñoom nees comprendre nga. Tidiane Faye Sentel Baye Ndiaye waa Lamsaar yëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax. di waa Sicap ji ma dëkk maa ngi leen di jégalu ma métti na trop waa Gambie mënu ma leen fàtte. waaw ndax wax dëgg yàlla lu lu dagg morom ba lay fekkee. waaw waa Casamance aussi tamit waa Dionewar comprendre nga waa Diofior. ñëpp waa waa maa ngi leen di nuyu baax di nuyu sama sëriñ si Moustapha Lam di nuyu waa Laañaar Guy Ndiaye sëñ Ablaye maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax. comprendre di ziar ñëpp di wax na ma ñëpp ñaanal na ñëpp génn. ànd ñëw ma marche dem ba stade bëre daan yàlla may yàlla may ñu daan. rendez-vous. rendez-vous dimanche incha allah rabbi. ban heure ngay dugg si stade. fa ngay ndekkee wala. non heure moom fanaan si. lu mu laaj rek fanaan si. waaw laajee fanaan si